assalamualaikum wa rahmatullah mbokk yi li ngeen gis ni nak li ab noob la bu ñuy fas ñetti fas ñetti fas yi kep koo ci fas inshallah allahu rabbi dotu am sogo ci yow dina la bëgg dina la jox bop te kenn kenn ci adina du xaj seen digënté ba man ko yaq inshallah allah kon dama bëgg ngeen déglu mu bu baaxa baax tewluma ma man wax leen inshallah allah ni ngeen koy defee ndax tay dafa laaj tewlu ngeen tewlu ko baax ndax li yag nañ ko defar ay nit ay góor ay jigéen surtout nag ñu nekk ci sëy sëy ba xaw a ñagas tuuti ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a sëy te sëy ba xaw a retard kon nag mbir mu am solo la ngeen teewlu ko bu baax a baax a baax a baax a baax bisimilah. salaali muhammad walaali muhammad sekere sekere makere makere jabri ankaani moom mooy turu diw ak diw ku góor ki ak ku jigéen ki maane ma nuri ma jibru jib ku daami jabru jabru daami no fani yumri jerɗu dami no berdegel keddom ko mbimi mbi sawi ani ko mbimi lokkani dunno hakkano babba degluwalen ko encore bo baaha baaha ba gen man ko jappo salali mouhammad walali mouhammad sekere sekere mekere mekere jabre ankani mum moy toru ko gorki akku jigenki mani me norima jipku tibru dami jabku jabru dami no fanu jumri jardu dami no berde kel keddum ko mbimi mbeyi sa wi'ani ko mbimi lokkanu dun hakkanu mbabba salali muhammad walali muhammad sekre sekre mekre mekre jabri ankani mane muy norima jiptu jibru dami nufanu jumri jardu dami keddom ko mbimi mbi sa wi'ani ko mbimi lokkanu dun hakkanu mbabba busi def busi nek nga def ko ñetti yon a ah, mi ngi nonu muy mbir mu am solo mo xamne ñun yag nañ ko defal ay nit ñu si gis ay résultat moo taxoon tey ñu ñëw séddoo ko ak yéen kon mi ngi noonu xam naa dañuy yem fii ba suba jàmm incha allah euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ngeen bàyyi ko xel nag nekk na mbir moo xamante ni du ay caaxaan moo ko tax a jóg mais ku koy def na ko def si farata ni mu ko waxee nii nag noonu lañ koy defee am na ñoo xam ne dañ may yónnee message damaa bëgg nga waxaat ma ko expliqué naa leen ko da ngeen ko déglu attentivement ngeen defee ko comme ni ma ko waxee incha allah kon ñu ngi yem fii ba suba jàmm incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah